waaw onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen bu baax a baax comme ni ma leen koy waxee à rek rang muy abonné tout droit ngeen laal cloche bi comme sa vidéo bi ñu dugalati ngeen bokk si ñu ko njëkk seetaan niñ koy defee ba saison bi posé ak léegi di leen di defal li nga xamante ni moom mooy résultat mbër yi wala bilan de la mi saison te ñu ñëw ak yéen ak beneen champion di Mbir Ndiol bu Joal Mbir moom aussi nekk di bëre pois léger mbëru léger la mais day balancer des fois mu laal ci pois lourd yi mi ngi ciy def ay résultat Mbir aussi nekk compétiteur maanaam li muy seetaan bëri na li muy wàlliyaan bëri na li muy compétir à chaque fois bu mënoo dem ñaar ñetti làmb de fekkoo fa Mbir Ndiol bu daanee bu daanoo amul découragé ñu koy encouragé ci loolu bëre métier la nekk ci tout le temps ci biir loolu Mbir Njool bu Joal def na huit final ci huit final yooyu am na ci quatre drapeaux ñàkk na aussi final quatre fois premier final bi mu jël mu ngi koy jël le vingt six octobre Joal la woon jël ko ci kaw Kaane Sadam le huit janvier Mbir Njool daal di jël fi nga xam ne moom mooy Fatick Njaanjaay jël ko ci kaw Mamou Zidane Mamou Zidane bu ñoo joor bi mu fa jógee le 30 janvier mu bëre fi nga xamante ne moom mooy Ndangaan Sambu jël ko ci kaw Amet jox double moteur bu Palmarin le 26 mars Mbine njool delluwaat fi nga xamante ni moom moo di Njaay Njaay Fatick jëlaat jël ko ci kaw beneen waa Joal Njool bu Sana wala Njool la Joola loolu mooy quatre drapo yi Mbine Ndiol jël ñaari yi benn bi Joal à domicile beneen bi Ndangaan Sambu ñàkk na aussi ñetti final ñetti final yi mu ñàkk voilà benn bi Joal Fadiouth la ko ñàkkee ñàkk na final Joal Fadiouth boobu ceeb la mayoon final wala ceeb moo ko daanoon rek beneen bi Palmarin ñàkk na fa final Seck bu Palmarin moom moo ko fa daanoon ñàkk na final fi nga xamante ne moom mooy bucc bucc foofu xamuñ kan moo daanoon mbir njool Ouyal Sand aussi ñakk na fa final di jëmbër moom moo ko fa daanoon donc quatre final mu ñàkk diggante Joal la Palmarin Buj ak fi nga xam ne mooy Ouyal Sand muy huit final quatre drapeau ak quatre final perdu yi. ba léegi ñu koy wër mais teel la ko yàlla dogalee quoi. dolli ñaan bilaahi Mbinjool mu dàq wàll si mbër yi chaque jour ñuy gis Mbinjool dañuy dem ba am yaakaar moom mu daal di lan moo waral lool. waaw gis nga xëy na loolu la yàlla dogal yàlla moom li mu namu rek loolu am mais man moom ah tànk maa ngi am wër moom bëre ji rek waaw compétir rek. Mbinjool lan moo ko manqué lan moo ko lan moo ko wax gars yi lan moo la manqué. non xam nga rek ma gënoon a sës ki nga xamante ne nii ma jógee rek jóg bilaay walaay moo manqué loolu daal saison bi demee bu waaw muy ma koy ma koy ñaanal yàlla fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee nii. billaay wallaay sama nit la. kon ñu mu ngi la daan naa ko mu daan ma. kon 1-1 la. man lay doon. 1-1 laa koy ñëw. Ah. waaw kon bonne jaar di la jox sa wàccuwaay naan la tay ban yëg nga mo taxaw final fi si Ndiaye Ndiaye Fatick. fay la dom day kontaan rek kontaan bu baakha baax ni ñaan yalla may man dam quoi. Ah. wa ñu gisee moom Zidane dafa tof biir bi côté far bi. da bu daanee day teud lu yàgg dogo juk dafa am blessure wala lat wa dama am blessure quoi. Ah. te mu dama doon boole après mu yëngatuwaat moo tax. Ah. wa ma ngi demee rek moom nak le nga am blessure di ko bëre est-ce que loolu wóor Ah, warna warna na mais lambu jee ko laaj rek parce que ñun quoi yang din jol laaj nañ ko mu ni yéen ñaar 1 1 la kuy 2 bi non inshallah dama ñaan yàlla may ma ma jël 2 bi quoi ah. nan la bonne chance parce que ok merci beaucoup yaay ok merci Давай, давай. nee naa la mais seen mbër bi jekku nañ ko de daanoo gul leen ordinateur ay merci seen mbër bi fi mu koy sori na doomu Joal bi Mamou Zidane dafa dëgër Ndoundiol boo ratee penalty bi mbaa duñ ko amaat dan digantikan Jovan aksi kejarnya Jendang Maldar Bupal Maren Bukarang ini Besan, Gerok dah finalu Janjai mana ko bukar lewat wapal Maren Mana mana yang macam apa le Dah aku kusin lapu हर हर Boucar Seck cey ko subalu le jambaar xe ngoog o fas o